audio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 installation bu commité départemental ngir xeex nag li nga xamante ne rek moom mooy mbëkk mi foofa ca Petite Côte bu mbuur na nga xamante ne rek ñu ci bari daal euh, fa la ñuy jëlee rek euh, point de départ bu ñu defee pàttali nag niki 8 septembre bee ñu génn lu toll ci fan fanweeri doomu aadama rek ñoom ñoo ñàkk seen bakkan ci ab gaal boo xamante ne rek daal di woon na yëpp doon wutali diwaanu bitim réew euh, boobu leen gaal nag dafa mujjee xar rek lu ëpp fanweer ci ñoom daal di ci ñàkk seen bakkan ñu ngi ko daal di gisee rek ci waaxi mbuur yi ñu tegaat ci fan rek gisaat embarcation bi nga xamante ni rek daal di woon na fay bawee ko doon wutali nag île di Canaries ni ki fukki fan ak ñett ci weeru août ci atum 2024 boobu lee gaal nag mujj rek daal di teer ba mu teer see nag lu toll ci fan fanweeri néew rek lañ ci daal di gis yooyu lee néew sax nekkoon rek ci wàccaaw yàqu ginnaaw nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko gis du ñenn rek ñu napp kat ya nekk ca diwaan bu yoof du ñàkk rek dinañ ci ñëwaat ci yeneen i jotaayu xabaar jërë ngeen jëf ci ànd bi leen fàtte abonné bés cloche de notification notification yi ngir mun a am yeneen